ne leen bu leen jox fiche bu leen jox quittance parce que tout simplement administration mooy ëpp doole justice loolu nag conseil constitutionnel du ko nangu c'est extrêmement important parce que conseil constitutionnel ñi ngi wax sax jurisprudence su instant Sangaré mais dafa yeggul parce que kooku amul woon sa quittance mais dafa joxe preuve rek na am na caution waxe président Sonko dafa am quittance en ah. bon et due forme loolu déjà dafa leer la ca des nag mooy même bu ko même bu ko amul woon dañ naan défaillance u administration munul tegu ci kaw candidat bi parce que administration moo am défaillance mais cette fois si c'est à la fois une défaillance et une défiance dafa am défaillance ci ñàkk dox normalement de manière autonome parce que administration bi def lii dañoo dépendre ci ministre ministre bi dépendre ci ministre boo xam ne moom laay wooyee le candidat de la servitude volontaire boo xam ne da nga fas yéenaa bokkatu ci ginnaaw euh, gouvernement ba élection jot moo tax bi CNRA génnee seen communiqué bi ñu ne leen na leer de du ñu nangu mukk RTS wala quelques médias yoo xam ne xëy na moom la ñu jàppal tànk di couvrir ay activité am ñu naan activité gouvernementale la wala tournée économique la déedéet bu wóoloo boppam il n'a qu'à démissionner le premier ministre wala le premier des ministres il n'a qu'à démissionner wàcc ci terrain bi jéem a góorgóorlu ngir jël quatrième wala cinquième loolu moom loolu moo war a nekk mbiram loolu moo war a nekk mbiram mais munoo làqatu ñu lay kooku di la di la di la jàppale di la pouponné di la pouponné di la ba élection jot xanaa moom fas yéenewul démissionné donc loolu dañ koy wax mu leer que euh, fii ñu jëm nii CNRA na tëddee ñaaxaanaay jarul ñuy génn communiqué te heureusement ba ñun suñuy activité incha allah balaa la balaa balaa loola di jot ñun dinañ ko def ndax le trente mu ngi ñëw ah la ca des nag euh, mbokk yi. mooy li jëm ci wàllum carte électeur yi président Ousmane Sonko yóbbante yi ñu yóbbante yépp dernière phrase mooy ngir yàlla wax leen sénégalais yi ñu dem jëli carte électeur yi moom bu amee lenn loo xam ne mooy yitteem parce que moom bokk élection moom da ko da ko ginnaaw moom loolu nekkatu sax di di kii moom fi ne ban xeetu daan la war a daan gaay balaa douze heures loolu mooy préoccupation te loolu nag les milliers de cartes directeurs yi nga xam ne ñoo nekk ci préfecture yeeg yooyu di law ngal la waaye sénégalais yi na dem jëli ko parce que nag mooy gën a rafetal victoire bi parce que taux de participation bi da ciy am solo li tax nag xëy na ñu bëri di xaar mooy le 30 xam su ma ñëwoon ne le trente finalement dara xewul moom fi lañ may <laughs> du ma du ma génn saal bi waaye mbokk yi le trente top départ la président Ousmane Sonko mu ne le trente ah le trente c'est le top départ boo xam ne militant bu ne sympathisant bu ne wala sénégalais bu nekk na jàpp ne élection bi élection wam la na jàpp ni dafa warul ratel le train de l'histoire na jàpp ne la ñu doon xeex tàmbalee ko ca ñoom Yacine Bouba ñoom Cheikh Omar Fouti yok ñoom maanaam ñëpp ñi nga xam ne jaar ci Cheikh Ahmadou Bamba ñëpp ñi nga xam ne xeex nañu ngir Sénégal moom boppam ñëpp ñi nga xam ne xeex nañu ngir Sénégal bokk ci réew yi gën ba yegg si ci ñoom Mamadou Dia ba yegg si ci ñoom Cheikh Anta Diop ma ne deux mille vingt quatre vingt cinq février incha allah ca la ñuy nekk ci aboutissement wu xeex boobu te top départu victoire bi parce que processus bi yàgg na mais top départu victoire bi lii ñuy wax en route vers la victoire ñu ngi koy lancé le 30 décembre 2023 le 30 décembre 2023 mbokk yi c'est la cérémonie d'investiture du candidat du peuple, le président Ousmane Sonko. te ku wax cérémonie d'investiture du candidat du peuple xam ne peuple bi ñooy célébrer seen bopp xam ne toutes les forces vives de la nation ñëpp ñi nga xam ne dañu xeex ngir Sénégal wéy di nekk réewum démocratie ngir Sénégal wéy di nekk réewum jàmm ngir Sénégal wéy di nekk réewum dëgg ngir Sénégal goo xam ne li ñëpp bokk ñëpp ci jot jàpp naa ne le 30 décembre seen date la xaguma nag fu ñu koy defee ak nu ñu koy defee en tout cas du cib saal ndax ñun suñu candidat xajul ci saal waaw parce que nga nekk le candidat du régime sortant ñetti parti yi gën a mag ci sa coalition porté la seen investiture yëpp ñu defee ko ci ay pukus am na lu tax sonkorisation bi la ñuy daw le trente décembre bu ñu amoon li ñu gënal stade Abdoulaye Wade lañ koy defee mais xam na ne ñu ko jox wër nañu nag Sénégal jéem nañoo xool fan la ñu mën a am place bu gën a yaatu mais comme gis ngeen niñ dogot dogotee dëkk bi pour nga gis place bu yaatu problème la waaye mujj nañoo retenir ne dinañ ko defee ci xolu ndakaaru fa nga xam ne fala la candidat de la servitude volontaire dëkk te mu jàpp maire bi ko fa duma duma yu metti dugal ci kaso bi mi Jamil Sané terrain ak a pes bu Parcelles Assainies foofu la ñu fas yéenaa defee lii ñuy wax cérémonie d'investiture ñu jàpp ne fête la communion la jàmm ak salaama fay am ndax boo ñëwee ci terrain moom kenn du la wax occupation de la route ak yu kenn xamul comme yoom yooyu la ñuy génne bàyyee nañ leen seen yeneen salle yi nga xam ne xam na ne ñu ko jox maanaam stade yeeg yooyu kon nag dem nañ fi nga xam ne askan wi yëpp ko bokk vérifier nañu ko ak mairie bi dara xew fa disponible na macha allah déposé nañu ko far farañ ko war a déposé ñu ngi waajal événement bi te jàpp naa ne sénégalais yëpp ko war a waajal seen bopp ñu ci woo nag ñëpp bàyyi wuñu benn segment de la population parce que il ne s'agit pas du président Ousmane Sonko il ne s'agit pas de la coalition Sonko président il s'agit du Sénégal ndax li ñu doon xeex ba lii am ci ba ay nit faatu ci ba ay nit ñu tëj leen ci ay kaso ñu tëj leen ci kaso may jaare ci kii ñuy wax Mame Pathé Mbaye mi nga xam ne gis naa ko fi sànq l'homme en ngir sargal mbooleen ñi ci prison yi xam ngeen lu tax moom xam naa biñ koy jàpp dañu ragaloon ne mooy sëriñu tariyaaxu président Sonko ndax foo ji Sonko mu nekk ci wetam fekk ne du loolu de dafa dog woon ni fu président Sonko di génnee dinaa génn te yàlla maa ngi lay ñaan bu ko bal na rey na dal sama ko looloo taxoon ngeen ko doon gis fu Ousmane Sonko nekk moom ak ku ñuy wax géy leer nga xam ne mi ci kaso bi ba léegi Touba lañ jógee ñëw fii di daan doole bi ñu ko jàppee li njëkka a def ndëraan yi ngeen gisoon ni jaar ci VDN place bi mu doon jaayee oto moom lañ rajax dañu soxor dañu iñaan amuñu benn respect ci doomu aadama looloo waral tey kooku ñu defoon loolu yaakaar ne dinañ ko découragé ba mu génnee moo ngi nii tey teew ci conférence de presse tey la gën a doog te ñi ci prison yi yëpp ci même niveau bi la ñu nekk donc loolu yëpp nag donc tous les sénégalais tous les africains je dirais même tous les peuples issus de tous les continents épris de justice jàpp ne réew réew mi ak adduna bi dafa war a nekk réew jàmm adduna jàmm ñu ngi leen di woo le 30 décembre ñu mën a teew ndax nag ah victoire bi foofu lay tàmbalee de te ku ko raté yaakaar naa ne euh, date historique la tournant décisif la gaw ma ne dina amaat ci cinquante ans yi moo tax nag na Sénégal yëpp wàcc ñu ñëw euh, loolu nañ ne woon mbokk yi dinañ leen ko wax dinañ leen ko déttal kon ñi ñu doon euh, waaw ñu ngi may laaj heure bi mais xam leen ne quinze heures lay commencé mais mënoon naa bañ a joxe heure ndax xam naa ne patriote yi dina am ñu fanaan dina am ñu fa ndekkee si te ku yéex xëy na doo am foo taxaw loolu nag li muy firndeel rek mooy askan wi moo xewle ñuy ñaan yàlla rek comme ni fi candidat yëpp defee seen ay investiture bu ñu ci jéem a génne benn benke ñenke nañu bàyyi askan wi feetu bu fekkente ne am na lenn loo xam ne war nañ ko ci def mooy génne président ko mu fekk investiture bi lu dul loolu nag nañu bàyyi ñu def suñu investiture ndax ñëpp xam nañ ne bu dee garantie rek un candidat et futur président mënul daw génn réewam donc il présente toutes les garanties euh, ngir tënk ko rek yaakaar naa jaru ko sax ndax feet bi suñu feet la euh, jarul tënk ci français je pense donc je vais conclure. je vais laisser euh, Maimouna bi conclure benn yoon mu ñëw ci rapidement quoi jërë ngeen jëf.